ngi rab fokk yu classe ni dof ni nga fokk waaye xoolal yooyu rab xoolal yooyu rab mais gars yi xool leen xat-xat yooyu ni mu dëgëree mais rabu léegi ay ah say sàmm bës nu muy wayee te sax moom gay waaw baby la ma suna bele ama sukuway nal bene pour mu nekk mën a yow la vaaya almi ndegee mi ne doon daaya cottu ndey yoy rab saram ndey booy rab bi góor jigéen la léegi yàq ngeen rabu senegal xat xot jóge na Sénégal cottu ndey bi rab non gém bi yàqu na non non gém bi yàqu na gém bi yàqu na léegi c'est hudda saram ndey gém bi yàqu na waaye oh non waay ah waay xat waay barik ma non non non mais dof kenn du moom sa tëtëtët gars yi léegi danoo nooyal rabu Sénégal bee ko nooyal nooyal rabu Sénégal moo gën a nooy data fas jamono ji lëfu nag rab bee ko gën a nooy non mais rab bi yàqu na non c'est bizarre c'est hunta